salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit di ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak di leen baal ak di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole ñu jéggal di del siwaat ak yéen ci seen jataay bi nga xam ne mooy daara yàlla xadimul asna di leen nuyu bu baax di leen ziare mboolem yéen ñi topp As-Samadiyya del siwaat ak yéen nag ci téere bi nga xam ne mooy tazawudu sixaar tey ji ñu war a ñëw ci suñu bindu ñaareel mu nekk nii di ñëw incha allahu taala yaqulu man laysa yazaalu yaxmadu malikahu l abdul xadimu ahmadu alhamdulillahi alladi li axsana ixsaana man laysa yazaalu muxsina ahmaduhu wa jaada bitawxiidi wa axawayhi sunnati lwaxiidi summa salaatu wasalaamu sarmada ala xalilihi alxabibi ahmada wa alihi ma asxaabi almuminin almuslimin alkurama almuhsinin hada wada nazamtuhu muqaddama urjuzatan nafiatan mukarrama sammaytuhu tazawud alsigaari ila jinaanillahi zilanhari wallaha rabbi asalu alqabula wal amna wa alsafaa wa wa kawna hada nazmi qaidan ila sabilihi al aqwami kulla man tala wa kawnahu saadata tullaabi dafa juum saadata sibyaani wa shiibi wa shubbaani wa niswaani wa kawnahu saadata sibyaani wa shiibi wa shubbaani wa niswaani hada awaanu linsiraafi lilmaraam wa wajhu rabbi garadi bila nsiraam loolu mooy bind bi ñu war a jël tey incha allah te ba léegi mu nekk ci ubbiteb téere bi eh, ba tey duggagut ci li tax téere bee jog waaye li ubbite la bu ci munta ñàkk eh, day wax ne yaquulu mi ngi wax wala ma ngay wax man ka nga xam ne lay sa yasaalu musta dañ yaxmadu di sant malikahu ka ko moom al abdu ki mësta dañ di sant mooy jaam ba alxadimu ba di aji liggéeyal ahmadu ahmad eh, maanaam mooy jaam ba nga xam ne dafay liggéeyal yonent bi sallallahu te moom mooy ahmadu kooku la ne mooy bëgg wax kon boppam lay wax moom cheikhul xadim li wax mooy alhamdulillahi maa ngi sant yàlla wala alhamdu ak cant lillahi ñeel na yàlla allazi ma nga xam ne ahsana rafetal na lii ma ihsaana man rafetalu ka nga xam ne lay yazaalu mësta dañ muhsina di rafetal ahmaduhu maa koy sant wajaada te tabena bi tawxiidi ci weetal yàlla wa axawayhi ak yaari mbokkam ya te mooy fiq ak tasawuf nga xam ne ñoom ñett ñoo ànd di mm, day xaaji lislaam te mooy imaan islaam ihsaan ni ko bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon waaye mel ni dañ ko laaj waaw tawxiid ak ñaari mbokkam yooyu ñoom nu seen xadru toll mu ne mooy sunnatil waxiidi ñooy yoonu ki nga xam ni mooy kenn ki amul moroom summa salaatu topp julli wasalaamu ak mucc wala sëlmal xéewal ak mucc wala julli ak sëlmal sarmada faw ala xalilihi yal na ne ca xaritam ba alxabibi kadib soppeem ahmada te mooy ahmad mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa wa alihi te boole ca ñoñam ma saxaabi ànd ak ñam doon àndal almuminin ñay way gëm ya almuslimina ñay way jébbulu ya alkuramaa i ñay way tedd ya almuhsiniin ñay way rafetal ya lii waza ak loole muy meneen mbind moome mu bindoon ak lii nii mu ne nazamtuhu dama ko mu muqaddama mu di lu ñu jiital urju satan mu di aw rajas rajas nag benn la ci xeetu wayeen yi mu ne aw rajas la binde téere bi waaye naafiatan gu am njariñ nag bu mën a jariñe mukarrama nekk bu ñu teral aha bu ñu teral la ndax xam-xam bépp buy jàngale diine walla bépp téere boo xam ne day jàngale diine xam-xam bu ñu teral la euh, sammaytuhu tudde naa ko moom téere bi tazawuda sigaari yóbbalub ndaw ña mel ne dañ na ko waa ndaw ña fuñ jëm bay wutub yóbbal mu ne laa jinaani laahi jëm ca àjjana yàlla ja zilan xaari kay boroom yool ya nga xam ne àjjana ya ami yol yu ne ca biir mooy dex yu daw ca biir ay sewnde lool la ne àjjana jooje dafa mel ni fala gone ya bëgg a dem yóbbal bii nag da leen ànd ak ñoom ba jëm foofa wallaha te yàlla dong dong dong rabbi mii sama boroom asalulaay ñaan alxabula ak nangu walaam na ak wóolute wa sofaa akuk sellte wa tabjila akuk màggal wa kaw na hëza nazmi bokk na ca lama koy ñaanit nekkuk woy wii xaa idan di aji wommat kulla mantala képp ku ko jàng ila sabilihi jëme ko ca yoonam wa moom yàlla al aqwami wa gën a jub wa kaw nahu bokk na ca la ma koy ñaanit nekkub téere bii saadata sibyaani di texeeg ndaw ñi wa shii ak borom bi jaaw yi wa shubbaani ak waxambaane yi wa niswaani ak ndaw ña ak jigéen ña astaghfirullah alazim ak jigéen ña hada lii nag fi ma toll nii awaanu lin siraafi mooy jotuk wëlbatiku lil maraam jëm ca càkkuteef ma mooy li may sàkkoo jàngale ci téere bi fii ma toll nii teem bi nag waxtu wëlbatiku jëm ca jot na wa wajhu rabbi te sama jëmmi boroom nag xarab yi moo ci sama jubluwaay bilan siraam ci lu amul yemukaay eh, li ma ciy def lépp lima ci daj ak joxe gi ma koy joxe sama jëmmi boroom képp laa ci jublu kon loolu mooy beneen eggale ubbite téere bi su ñu fi dellu seen ak daal di dugg ci mu muqaddama bi nga xam ne bokk na ci li tax téere bi jóg dama doon ko junj sànq ne daanaka moom it ay bindi tasawuf la rek ndax njàngale mu leer moo xam ne jikko lay woon boroom ci la jëm incha allah liñ jàng tey nag dafay ne ki nga xam ne musta dañ di sant yàlla mi ko moom te mooy jaamu bi yàlla bay liggéeyal Muhammad tudd Ahmadu mooy wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne rafetal na ci man rafetalu ku musta dañ di rafetal ku tàmm rafetal bu rafetalee nga xam ne day rafet lool mun a rafetal gu mel noonu la rafetal ci man maa ngi koy sant ndax tabe naa man ci tawxiid may na ko tawxiid lool sëriñ bi kenn du moom ci wéetal yàlla waaye kenn du moom ci nu muy jàngalee wéetal yàlla itam waaye itam noonu la tabe noonu la ma tabeele ci ñaari mbokki tawxiid ya te mooy fiq ak tasawuf wala nga ne mooy islaam ak ihsaan ñoo ñi nga xam ne ñooy yoonu kenn ki nga xam ne mooy yàlla wala nga ne kenn ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi amul moroom ci ñiñ kay tudd di leen tudd yàlla moom amul ku ñuy tudd di ko tudd mu ngi ñaan itam xéewal ak mucc gu sax dàkk ci xaritub yàlla ba di soppeem ba te mooy ahmad mooy yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa ñaan googu nag mu ngi wax ne na daj ñoñam ay bokkam na daj ay saxaabaam mooy ay àndandoom saxaabaam yooyu mbokkam yooyu nga xam ne dañoo nekk di ay way gëm nekk di ñu jébbal seen bopp yàlla nekk ñu tedd waaye nekk ñuy rafetal mu ne lii ma wax nii nag ak loolee ma waxoon ba ma ko boolee dama koo def muy way woo xam ne ak jiital la waaye nekk itam aw rajas nekk tim am njariñ te nekk wu ñu teral daal kuy tudde yóbbalum ndaw ñi jëm ci àjjanay borom bi tabaraka wa taala ja xam ne àjjana ju ànd ak ay sewnde la ne nag ginnaaw lool nag yàlla sama borom rekk day lay ñaan mu nangul ma ko te may ma ci kóolute may ma ci sell may ma ci màggal way wii di nekk luy wommat ki nga xam ne moo ko jàng jëme ko ci yoonu yàlla wa gën a jub te nekk itam di texeet ñi nga xam ne ay ndaw lañu tut tànk yi borom bi jaaw yi mooy mag ñi waxoon naa ci tàmbali bi ne yóbbalum ndaw la ko tudde waaye mag mën na cee yóbbalu waaye ak waxambaane yi mooy adolescent yi ak ñi nga xam ñooy jigéen ñi ñoom ñëpp mën nañ cee jële ay yóbbal ngir dund seen diine te bu boobaa mu ànd ak ñoom wuti àjjana Eh, lii nag mooy waxtu wëlbatiku wi jëm ci li ma tax a jóg te sama jëm boroom rekk laa ci jublu ci lu dul dog mukk kon loolu moo doon suñu bindub tey ñu sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah